lamb ji dafa jaral lu ne. man góor du ma asale góor du ma gëtëng. mais dama la ne. paquet du biscuit. benn doo koy yëy. li ma waxoon maa ngi jaba tey. lu wax ji di gën a bari mu gën a metti. mais ku bëgg a gis prix tour prix tour. xeex naa mu joo xamante ne sama bakkan laay teg. man foo sax bëgguma ñàkk. waxum laaj nag ñu dugg biir yéen. foo rek bu maa la gën a xottee. fuuf xotteeku yow man man may yàqu. laa la man damaa yàqu. waaw maa la gën a xottee. ñu jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci jàmbaar news nuy nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñu leen koy defalee saasu su ne ñu ngi fii biir Pikine Pikine nag bu ñu ko waxee da ngay xam ne gox la boo xamante ni làmb yàgg na fi tey it macha allah yàgg nañu tàggat ay champion ci biir làmb titre Pikine dégg na titre bi di roi des arines deux fois ki nga xamante ni moo ko njëkk a dugal ñu fekkee ko muy Mouhamed ndaw Tyson waaye tey kii di Eumeu Sène sëtu Samba Xoyaan bi moom it dugal na ko fi. Munyari ñaari titre yoo xamante ni Pikine dégg nañu ko muy roi des arènes deux fois mais Pikine également perte nañ ko ñoom deux fois diggante Boy Niang ak ki nga xamante ne mooy le roi des arènes Modou Lo perte nañ ko ci diggante Ama balde ak Modou Lo kon nag macha allah ñu toog koo xamante ne mooy Père Xës nekk coach école de lutte Boy mu ku baax vraiment bu lu mu yox ci làmb njariñ la nañ ko nuyu bay ko mu nuyu mbok internet di su ko defé ñuyel waxtaan Père Xës ma lay nuyu bax di la siyaar nyi lay nuyu bu baax jili borom wax dat euh, di nuyu say mbok internet yi nga xam ñi ngi sétan si jambar, di nuyu kull ko xam rek yaangi dëkk Pikine di nuyu wa aduna, di nuyu wa diaspora bi di la jox sa way bu baax jili mhm. mais Père Xës da nga rar depuis Boy ñaan bëreeg le roi des armes modlo ba nopi gisunu la dégguñu la nang wo wax nang wo def ben sorte lu waral lool wa jeli xam nga xam nga souvent man dama nan wax lu am njëriñ mhm. moom mo gën comprendre nga wax lo xam ne suba sa yo xolaté sa bop am autocritique boy def sa bop mhm. man damay bëgg toujours kumay waxal ci lamb ñu wax techniquement selon yenn yi mënul ñak mais amna yenn yo xam ne ci bëggé di wax man je préfère comprendre nga xam bon li ma ak su neew ma téyé ko ak man nga xam ne bu suba Euh, sama sët yi peut-être xëy na ak suma doom yi bu dee xool si YouTube bi bu ñu fi dégg ne comprendre nga seen waajur moom moo fi waxoon loo xam ne comprendre nga parce que toujours man suma waajur góor Baay Faal la dafa ma doon wax ne ma bu la nit defee dara amal courage yu jàkkaarloog moom wax ko ko comprendre nga euh, bu la nit defee tamit comprendre nga li nga xam ne moom mooy safaan la comprendre amal courage jàkkaarloog moom wax ko ba nga xam ne doo dem fenn di lamenté wu jiko joju mo nek si man je wax lo mais je t'appelle directement damay wax ak face to face mais du ma ci média bi di wax parce que fajul dara au contraire day yok lolu mom mo waral comprendre nga ba pare ñu ci combat que xam ñu nak modlo euh dafa euh, bon ma am comprendre nga ci ñaari combat bu Ama ak bu ma déception parce que déception nga ben affaire comprendre nga mu le contraire tam ma si bu waaye nag ki ñu doon dajal champion la boo xam ne kenn mënu ko naatableel li nga xam ne moom mooy champion. Euh, yàlla may ko ndam si kaw booy aussi ñu koy félicité loolu la woon bon ma ne nag naa def tekk ba gis foo xam ne war naa fa mën a waxee. te yow jiili yow dañoo yàgg mën ak yow. te yow boo dee wax si làmb comprendre nga loom importance rek ngay wax et doo laaj yenn laaj yi moo tax ma sawar a wax ak yow. Mm-hmm. am na solo mais père faw ñu dellu ginnaaw tuuti Pikine dugal nañ titre roi des arènes deux fois. waaye deux fois yooyu lu muy neex neex Pikine ñàkk nañ deux yoo xamante ne ñu bari ci wàllum làmb nee waruñu ko woon ñàkk parce que pikin dañoo diviser wu woon dem ba mujj gi ñu xam ne mbooloo mooy doole gis nañ ni Pikine ñu ngi boole waat te Pikine bu ñu boolee lu ñu song daan ko lan moo waral pikin saa yu ñu jëmee ci événement yu mag yi rek ñuy diviser wu comme niñ ko mën a wax. waa jii jili xam nga da nga naan euh, ay nit bu leen yàlla boole nga jël exemple si ay bant bale rek soo leen boolee ba mu mot à peu près pour nga damm leen problème lay doon. mais boo fexee ba mu éparpillé wu boo tekkee takk bi fexe ba ñu éparpillé wu mën nga leen dagg benn mun nga leen damu benn par benn di wax ne comprendre nga damay wax rek que ne euh, Pikine wuti na ñaari combat ñàkk ko mais ak kan ak kan si lañ ko ñàkkee si kan lañ ko ñaké aussi si ban sportif lañ ko ñaké si ban combattant lañ ko ñaké combattant bo xamné yag na wuti comprendre nga xamna bëss bu neex xamna bëss bu naqari daje na façon champion bu nekk kooku nak su fekkee né da ngay ak mom mu may la sens aussi comprendre nga donc honneur euh, erreur bo def du la pardonner té bon franchement parler jël nañu combat yi si anam yo xamné ne waruñu ko jël bëree nañ ko noo xam ne waruñu ko bëre mais dem nañ ba si biir xam nañ ne comprendre nga ñun booloo moo ñu jik parce que euh, mbott euh, damay dégg sama gars yi ñu koy wax sama benn góor gu baax mu ne mbott ba ko mbaam attaqué na ko nañ rawante euh, daf ko ne d'accord naa waaye danga may may ma dem waxtaan ak samay mbokk mbott damay waxtaan ak ay mbokkam mbokkam ne ko comme xam nañ ne moo la gën a gaaw waaye fu nekk fu mu dem rek dina fa fekk sa mbokk mu taxaw te mënoo ràññee mbott bi nekk dakaar ak mbott bi nekk loolu moo tax dañu naan ànd ak say mbokk dafa gën bañ a ànd ak say mbokk boo gisee buur yi fi nekkoon sax su fekkee ne jàng tuuti histoire Sénégal euh, tubaab yi li ñu leen divisé woon li ñu leen mënee woon si exemple saa ñu si jekkoo kenn mën ko rek c'est parce que dugg nañ si biir famille bi wala dugg nañ si biir dëkk bi wala diviser nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo ko dar ba comprendre nga mën a am li ñuy am. ñu xam loolu nag aussi comprendre nga waxtaan ci sunu biir ñun ñëpp ne léegi nag bon waxtaan dafa jot am na yenoo xam ne jaratu ko li fi nekk mooy. Pikine war nañu booloo nit ñi ñi ngi naan dañoo war a entraîner dañoo war a def nii dañuy def li nga xam ne moom moo des actes ay acte nag moo waral comprendre Eumeu Sène di bëre nga gis booy Niang comprendre nga gis estafam yëpp Pokola di bëre nga gis Boy Niang gis estafam Jacob di bëre nga gis la même chose comprendre nga Ama di lépp parce que gëm nañ ne ñun waa Pikine suñu booloowee comprendre nga lu ñu dëgmal ñun ñoo la mën mhm. te nag nit nag day bëgg jàmm li lay may jàmm vraiment da nga war a daw wuti ko loolu moom moo waral li nga gis ni muy entente bi am ñu koy waxtaanee aussi ubbi group boo xam ne comprendre nga ñëpp dañ siy waxtaan. am yenn problème yoo xam ne duñ ko régler si kaw si suuf lañ koy régler parce que dëkk boo dem foo dem si àdduna kër goo dem am na problème. mais sa problème boo ko weeree comprendre nga si fi nga xam ne moom mooy YouTube bi. da lay indil ay problème loolu moom moo doon indil ay problème et je crois suturé nañ si ay leçons. te ñi nga xam ne ñoom ñoo yoree mbër yi parce que. Euh, daanu dajul suuf ñi nga xam ne ñoom ñoo yore mbër yi doon lañ ñi nga xam ne responsable lañ bon doo leen dégg si yenn wax yi doo leen dégg si yenn détails yi kon nag dañuy sant yàlla ko jéeli. macha allah si c'est à war a fas yéene woon a bëri ak Ama Balde fas yéene bëriwaat ak Boy Niang est-ce que ndam yi mu amee foofu Pikine gëm nga ni mun na ko amaate bi waaw xam nga Modou Lo danga naan Modou Lo mënoo ko jugé mbër la moo xam ne. wane na lu bare bare bare bare bare te daanee na lu nekk kon nag kooku soo ko amee doone du munul doone munul danga naan rek di nga def li nga xam ne moom mooy sa kemtalaayal kàttan fexe ba li nga xam ne moom nga defoon ba am si yenn erreur yi doo ko defaat je crois que nit ki fépp foo jaar ba jàll war nga soutirer leçon tey man su ma bëggoon dem parcelle bëgg a jaar si kaw miir bi yéeg du sotti dafa am yoon bu may jaar kon nag noonu la demee àdduna yoon la sport de combat yoon la da ngay def li la war nit ki def li ko war jour ba nga ñëw comprendre nga def li la war moom mu def li ko war li si des nag mooy ndam ndam nag sunu boroom moo ko moom mais nag day fekk nga liggéey lu tax aussi nga mën a am ndam techniquement comprendre nga xamale ma lax physiquement comprendre nga mentalement ba pare comprendre nga ñi la wër c'est un ensemble comprendre nga demeek yow ba nga xam ne benn faay du am te si faay yooyu noonu mën naa wax ne Modou moom lay gañee ñu bëri mooy jouru combat yu mag yi am na habitude di bëree bés yu mag mooy su dina ñëw heure dina def li muy def heure dina teel a pare si heure bon ñenn ñi nga xam ne nag comme sunu combat bi passé li ñu dal ñëwuñu heure parewuñu heure defuñu liñu wara def ci heure comprendre nga loolu nag boo baakalee li nga wara def yëpp échauffement bu normal sax defoo ko fekk les paré te doon un sportif doon un combattant am ay avantages yo xamné yow mën nga ko am peut-être xëy na comprendre nga xam si combat bi daf la manqué muy tous les boxeurs d'équipe nationale comprendre nga xam li ma wax bolé c'est l'entraîneur national ñu koy féliciter si médaille yi mu jëli woon barki démb parce que euh, équipe nationale boxe demoon na comprendre nga am nañ fay médaille ñu siy féliciter bu baax bolé ak ak euh, directeur technique yeeg comprendre nga ak président fédération comprendre amoon na avantage boxeur lourd yi nga xam ne ñu ngi équipe nationale ak boy yëpp mu mën leen a jël comprendre nga ànd ak ñoom di takk gant di xeex amoon na tamit ay fighting partenaires yoo xam ne comprendre nga bu mu bëgg ma nga fa soo bëggee daam soo jëlee daam seen jël ki nga xam ne moom mooy Talfa jël ki nga xam ne moom mooy Franc jël ki nga xam ne Papa Sow sax ba léegi day entraîné comprendre nga jël ki nga xam ne comprendre moom mooy Goro Sock comprendre nga am ay potentialité yoo xam ne ay booy lañu comprendre nga yoo xam ne dañuy bëre si mbappat yi di bëre si loolu soo amee loolu moo delloo si waat Modou si forme bi nga koy gis nii léegi nag kooku boo dajeek moom bu la daanee kooku c'est un champion champion moo la daan te dañu naan boo bëggee yegg fenn fi da ngay daan ñenn ñi waaw te Modou moom dama koy wax man loolu laa yàgg a wax si sama interview soo ku bañ ku bañ njombar xam ne gudd na nopp mën naa daw te c'est champion waaw. macha allah c'est un champion euh, loolu nag lañuy ñuy xuusee dugg ci Modou Lo mi nga xamante ne dafa jël ñaari xale daan leen fas yéene dugalaat beneen xale. muy Siteu. Siteu yaakaar naa ne ci combat bi ñoo dégg ñu bari ci wàllu ñiy ana analyser làmb dañu naan Siteu amul sens ci combat bi. waaye moom xam na li mu ko war dem na entraîner ji jóge États-Unis nga gis seen shooting yi ñoom ñaar état de forme yi en tant que coach boo xam ne yàgg na préparer mbër ci bis yu mag yu mel ni noo gisee ñoom ñaar. waaw bon seetaan naa seen shooting yi aussi déglu naa leen ñoom ñaar. Euh, mais gars yi doo leen juger si seen combat yi nii doo leen juger si nii xam nga Modou Lo euh, boo gisee form bi mu yore nii bi ma gisagum nii parce que au fur et ñuy dem mën na ko changer ah combat bi des na mais li ma gis nii soo ko gisee dafa may fàttali digganteem ak Bombardier digganteem ak Bombardier lu mel nii la indi woon mais nag ma wax la mootloo aussi du du du muscle long muscle courte la comprendre nga du ndaama lool du njool lool mais fexe na ba nga xam bokku na si ñi nga xam tay ji ni bo di lim si lamb ji da nga leen di tuddu mais nak Siteu dafa doon xalé bo xam aussi tamit envier wul kenn xam nga tay ki nga xam yegg na ba ci kaw étage tabax ko ak ki nga dafa tabax premier rek bëgg jox ci si kaw bon koku duñu yem motivation mais nak si tu un champion yow lo am lu ne si sport du la doy parce que xam nga tax du doy day am ñu lay top nga doon li nga xamne mom moy bañkat am lo xamne waru la comprendre nga parce que tey Modou Lo niveau bi mu nekk dafa am ñoo xam ne dañ ko dar si gannaawam doon ñu ragal defet Siteu tarkindaa bi am ñoo xam ne dañ ko dar ne ñun fi Modou Lo nekk fi Balla Gaye nekk fi keneen ak keneen nekk bëgg nañ fa jëlee làmb ji yóbbu ko fu gën a kawe foofu moo tax làmb muscle courte la ak muscle long Modou Lo yu gàtt la yore gàttul noonu aussi mais am na habitude comprendre nga bëreek ay njool parce doo ko juger si si nii da koy juger si Lac de Guiers ko si comprendre nga Bombardier boo xoolee combat yi mu bëreeg ñoom doo ko juger sax si booy yi boo xoolee ñaari combat yi mu bëreeg Lac de nga xam ne xam na ni ñuy bëreek njool waaw ba pare Modou Lo dafa am li nga xam ne moom mooy power hand power hand mooy loxo bu am doole loxo bu am doole bi comprendre nga mooy bras bi nga xam ne moom mooy bras droit bi mais Siteu dafa am li nga xam ne tamit moom mooy bras gauche boo xam ne moom mooy bras arrière am bi nekk si gannaaw di wax ne rek tey jii nii ñi nga xam ne ñoom ñooy coach yi di analyser lamb ji mën nañ si juum mën nañ si juum bu baax a baax waaw nit ñi ñuy analyser comme exemple jël lépp jox ko ki nga xam ne moom mooy Modou Lo Modou Lo na xam ne comprendre nga am na combat bu sérieux combat bu sérieux mooy nga yore dara xale bu ndaw comprendre nga boo xam ne yaakaaruñu woon dina bëre si li nga xam ne moom mooy roi des arènes yàlla dimbale ko si mu am ñu nekk si gannaawam Siteu ni nga koy gisee nii di gis tarkindaa yi dafa am ay tarkindaa intellectuel yu nekk si gannaawam peut-être ñu bëri nandu ñu ñooñu mais y a une machine intellectuelle boo xam ne ñoom ñoo nekk si gannaaw Siteu boo gisee Siteu jalon yi muy posé di gis Siteu comprendre nga comprendre yi muy pipeline di ko organiser nga xam ne y a machine xam nga forte bo xamne mom mo nek ci gannaaw di wax ne rek lamb la jo xamne ne organiser na lo xamne ñepp ñëpp bëggoon nañ ko organiser mais si mom la ko yalla dogal. di wax ne gaay li ñuy fokk ci lamb joju nonu mën na baña démé non mën nañ mën nañ ne far modlo dag jengi jégé ci ta mën na ko jege parce que loolu mom moy combat bi mu war modlo warul sori ta su ci ta ci ta mo am avantage mais su ci ta par force ta dina def recul. parce que njool la ak ndaama su jegee Siteu moom li mu bëgg da koy am su Siteu defee retrait nag sori ko balaa moo ñëw Siteu capté ko mooy diggante Papa Sow ak ki nga xam ne moom mooy Modou Lo boobu moom moo dellu si woon Papa bëggoon na réduire li nga xam ne moom mooy distance bi Siteu mayu ko ko peut-être nag xëy na loolu amoon gars yi mën nañ ko régler si combat mootloo bi di wax ne mootloo Lo day régler ay combaam si benn coup wala ñaari coup parce que xam na ne lu la si droit tam nga tàqali ko sa sago bu dee 15 secondes bu dee benn 10 secondes mu juum loo la yegg la foo xam ne balaa ngaa bëre mu daan la wala bu la yeggee fenn fi comprendre nga dalay daan. te Modou loo doon na koo xam ne su ko neexee mu def la appel comprendre nga xam ne fi nga xam ne moom mooy si loxo bi gauche. Mm-hmm. yegg si droite su ko neexee mu def la appel rek comprendre nga si loxo droite bi téye beneen bi nga xam ne gauche bi di ko préparer pour boo jógee mu kor la dóor la uppercut mm-hmm. wala mu dóor la crochet. Mm-hmm. bu ñu fàtte tamit boo leen jëloo si xeex li muy njëkk a mooy. arrêt bi loxo bi nga xam moy ci si kanam bu lu si doré arrêt li si dess comprendre day indi li nga xam mom moy droitam parce que wolu nako hmm. papa na nga def salaamaaleykum ñoo ngi jégalu papa mbaa ci jamm si jàmm. ngi jégalu mbokk internet yi moy sunu ilimaanu quartier bi. su démé julli ji ñu tok buntu kërëm ba délu si ni yoon lañu joxo wacc way wàcc loolu la rek jili amna solo mais Père Xeus une fois tay yow nga indi won site nan la mëna aborder combat bi ba am ndam ci kaw modulo ci dugg si bi nan la wara a dugg ci concentration bi lan la war a def ci wàllu tous noonu la war a def ba ci digg géew bi nan la war a bëri. waaw xam nga nag foofu nag du ma fa dugg parce que su ma fa duggee damay porter li nga xam ne moom mooy préjudice mbër yi wala soit ma wax loo xam ne waruma ko wax sax mais si combat bi jàppal lii ma la wax du si ñàkk na nga ko tegaat jili bu la neexee modlo bu jëlee ko Siteu mën na yàq combat am bu jëlee ko modlo mën na yàq combat am Nyar, ñaar kenn waru ci jël ñoom ñaar ku si nekk dafa am loo war a moytu comprendre nga te ñoom ñaar tànk yi ñuy teg ñoom ñooy li nga xam ne ñooy ñooy ñooy xaw a dajaloo du mukk ëmb ko parce que bëgg def mom su koy def day bëgg comprendre nga dugg fi nga xam ne sa garde saa yu génnee ëmb la su dellu see da lay arrêt def retrait soo dellu see mu dóor la remise comprendre nga gauche bi. kon nag yooyu noonu dafa doon yoo xam na nit ñi xel di wax ne Siteu je crois que ñi ko ñu mature lañ parce que wax naa ko léegi léegi am na ay erreur ñun yu ñu def ñoom war nañ si suturé leçon parce que tey am na loo xam ne bu dalee sa adversaire wala mu dal koo xam ne xam nga ne kii dafa ñëw woon pour jël si li nga xam ne moom la Modou loo yore dara dal ko si yow war nga moytu yooyu moytu yooyu mooy si te ñëpp xam nañ ne buy génn day métti mu teel a génn teel a ñëw si làmb ji

bu demee nag ba tollu fenn fi am na ñu ko war a wax taxawal nangam yokkal li defal li comprendre nga mais di wax rek que ne làmb la joo xam ne ñi ngi si jëm di ñaanal ñi ko tëgg suñu borom defal leen xéewal defal leen lu kawe seen njort si bés bi nga xam ne moom lañ tëgg muy waa jàmbaar yi parce que ñoom bi ñu ñëwee si làmb si dañoo yokk man li may wax rek mooy li ma si gën a neex mooy dañoo ñëw wane ne ñoom dañoo am fu ñu bokk fi ñu bokk dañ koy dundal boole si nag ku si xaj ñu boole la si te doo gis si seen i organisation yenn détails yi kon ñoo xam ne lañ comprendre nga ñu jara félicité lañ saluer leen di wax ne rek lamb ju neex la na ko amateur yëpp dem seetaani si fair play parce que ñaari mbër yi ko seq man wóor na ma ne ñoom ñaar rek en âme conscience amul dara gaañ noobu lu nekk seen diggante fi mu toll nii. mais Modou moo du tamit aussi mu nekk roi des arènes bëre titre bi teg ko deux fois am ci ndam. war a fas yéene tegalaat ko beneen xale dina xaw a compliqué ci moom mais nan la war a ñëwee moom it pour bëre mbër mu mel ni Siteu ci code de popularité bi ci booy ni ñu mën a saltee làmb comme ni ñu koy waxee ni ñu amee cëfër cëfër yooyu noonu Modou Lo nan la war a mën a ñëwee ci combat bi ak nan la war a bëre. je crois que Modou Lo li mu daj si combat Ama Baldé ak pression bi lim si daj su ko mënee gérer. je crois que comprendre nga xam ne dajagu ko si combat ak site parce que site waxagu ko lu ci bir la la guko dafa ko lenn comprendre nga mi ngi koy gérer modlo dafa am mature ci lamb même bu magulee boy mo len max ci lamb parce que daf c'est yag yag nak du ay at at at nit mën na nekk si affaire comprendre nga ben deux ans am ci expérience bo xam comprendre nga day formidable loolu mom mo nek ci mom pour ne pas rek ma dugg ci comprendre nga ñom ci sen combat. mais li ma wax mooy combat bi foofu lay jeexee il faut kenn dina am ku si jël ku jàmbur am problème ñu jaaree la feneen wala lenn Modou Lo dina xaaj sita dina ko song si tànk xaaj ko bu ko Siteu jéemee mbot dina ko mbaar comme ni mu defoon Eumeu seen parce que Modou Lo day bëre tànk di bëre loxo te boo yaakaaree ne comprendre nga mënul bëre bërekat la parce que bërekat moom mooy def saa yoo leen jàkkaarloowee mu fexe comprendre nga yow li nga bëgg. mu jël ko teg ko fële moom fi nga bëgg mu jaarale la fa soo gisee digganteem ak Bombardier li mu bëree nga xam ne bañkat la digganteem ak Lac de boo gisee bi mu sësee Lac si saaku yi nga xam ne xam na ne njool doo ko may mu nooyi dafa accumuler Lac de Guiers ba Lac dafa def deux pas génn si gannaaw saaku yi si te nag boo ko jugé si diggante combat ak Zarko li mu bëree war nga xam ne war na bëree sax ku dul Modou Lô parce que Zarko indil na ko giite ngaas boo xam ne foofu jël ay tànkam maintes mënul si moom dara ba fin ba da koo suruxal kon nag làmb la joo xam ne képp kuy wax ne diw mënul daan diw rek yaa ngi si ngandi erreur parce que ci Siteu dama ko seetaan mbapat man mu bëre loo xam ne gisaguma ko sax mu bëre ko si arène bi loolu nag da ko war a indi si arène bi gis naa mu may si benn Papa benn kile yeneen yi si des yëpp comprendre nga day mboot di jàppi fële mais gis naa ko comprendre nga mu def loo xam ne si diggante ak Papa loolu lu bokk ci clé yi mu mën la kon nag yooyu da ko war a comprendre nga di ko exploiter xam nga lamb nag bëre dóor mooy bu jeexee rek jeex na comme li mbër di wax yu bëri doo ko def mais daal lamb la joo xam ne ñaari ndaanaan la ñu boole te ku naagu ku ci juum may ci sa morom lu toll trafatal ay nii ci ay ay détail la ñuy jouer combat bi mooy détail yi jouer combat am Ama balde ak détail yi jouer Lo Boy détail yooyu moom mooy définir li nga xam ne moom mooy combat bi ñu jëm nii ku si def défaut bu ndaw sa moroom exploité ko waaw moo tax nag ñi ñaanal ñaari mbër yëpp di ñaanal seen staff di ñaanal waa axlu làmb ñëpp suñu borom defal leen doole ak ñi organiser làmb ji ba ñu mën a comprendre nga def li nga xam ne moom mooy combat bi am si réussite réussite mooy combat bi am mbër yi am lu ñu yóbbu seen kër mbër yi si bëre amateur yi kontaan comprendre nga ñëpp ñibbi si jàmm li si des ay waaw jërëjëf maa lay jaajëfal bu baax. waaw mais nag mënoo ñëw ba fii mbër bëggee Baye Fall bi mënoo ñëw ba fii sama doom ji doon tudd mu doon tey bés boo xam ne bés bu mag si ñun la euh, parce que dañoo ne am na loo xam ne sant yàlla la soo àndeek nit ki mu doon xale bu ndaw ngeen ànd mu doon boxeur jóge si box bi ñëw si làmb ngeen ànd ngeen départandoo si combat mbapat comprendre nga premier combat ba yegg fi ñu yegg si ba mu jëli soxna nga bokk si ñu ko takk ba yàlla may ko tuuti tànk bu jigéen ñu ngénte ko tuddee ko Sherifa yàlla mayaat ko tuuti tànk bu góor ñu tuddee ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa dañuy wax ne loolu sant yàlla kum doyul dara du la doy ñu koy ñaanal rek di ñaanal bébé yëpp di leen ñaanal tawféex ak taysiir xéewal ñu juddu doon ay magul islam doon ñoo xam ne vraiment dañuy faj li nga xam ne moom mooy soxla doomu aadama yi parce que képp ku am njaboot rek da leen di ñaanal fan wu gudd ak wér yaram di la nuyu ak yow jiili di la wax ne la man ñu ma wax mais damay bëgg bu ñuy waxtaan ñu waxtaan techniquement bëgguma ñuy waxtaan loo xam ne ku ko dégg mën nañu xeeb wala dina ñi amuñu xam-xam si yi nga xam ne ñoo nekk ANELS maa ngi leen di nuyu mu association des entreneurs nationale Aliou Ba jiite ko euh, Demba Thiaw Diène doon suñu ma Massamba Mbaye doon suñu secrétaire et les présidents d'honneur ak Pape Mbaye Rock Énergie suñu président d'honneur si la bokk ak Lamine Golo ñi ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen sant di leen gërëm di nuyu waa jàmbaar yëpp di la jox sa wàccuwaay di la wax ne la kontaan naa si yow gis nga yow ay Lamine ay Babacar damay sawar a waxtaan ak yéen ay Fatma parce que dañuy waxtaan techniquement waaw man ak Médoune képp koo xam ne rek man bëgg nga ñu waxtaan techniquement parlant ñëwal képp koo xam ne bëgg nga ma invité ak coach boo ma bëgg a booleel

buñu démé ba tollu niñu tollu da ngay xamné ay jambar lañ parce que daj nañ lu mburu dajul ci taal kon nak ñogi ñaanal ñepp jaamu di ñaanal lu lamb di ñaanal jambar, di wax né juumuñu ci ce soir yow jili di nuyu wa diaspora bi yëpp di leen jox seen wacc way ak ngeerum ñeel na la allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim jox fer Xeus lamb ji dafa jaral lu ne man gor duma asalé asale duma du dama la ne paquet du biscuit benn doo ko yëy li ma waxoon maa ngi jaba tey lu wax ji di gën a bari mu gën a metti mais ku bëgg a gis prix dur prix dur xeex naa mu joo ne sama bakkan laay teg man foo sax bëgguma ñàkk waxuma laa nag ñu dugg biir foo rek maa la gën a xotteeku fuuf xotteeku yow man man may yàqu la wax man damaa yàqu waaw maa la gën a xotteeku ñu tàggoo yàqu di dee